il y a 15 jours dafa am benn dossier bu ñu plaider boo xam ne si Birane Yaya Wane moo le président euh, chambre de commerce ak les membres du bureau cité leen devant le tribunal wax leen ni ñoom dañoo def ay njuuj njaaj ay faux ak euh, li ñuy wax naan ay escroquerie pour wax ni dañoo sàcc en tout cas daf leen di topp ni dañoo def escroquerie parce que du seen élection bi jaarul ci yoon et que dañoo def ay faux pour aboutir ñu élire leen donc nag bi ñu defee loolu plaidé nañ ko juge bi waxoon ni tey dana joxe décision bi et décision bi mu joxe mooy Birane Yahya Wade li mu doon wax lépp loi joxu ko ci dara maanaam neenal na manam kon lim doon wax amul donc looloo tax tay ji euh bi juge bi waxee daf ni ñom ñepp bayina na biran Birane Yahya Wade doon laaj ci dommage intérêt manam ni won nañ ko jox 2 milliards Euh, tribunal aussi nee na loolu nee na du ko jox dara parce que amul wanewul dara loo xam ne si dana wane ni li mu leen doon reproché am na. moom nag li doon def mooy nee na élection yi jaarul yoon parce que gars yi euh, seen élection yi fi ñu ko jaarale euh, normalul mais li ma ci jaaxal mooy moom boo xoolee liste ñi nga xam ne si ñoo war a nekk ay électeurs moom bokku ci xaw ma nag ci ban anam la mën a jàpp ni way élection yi jaarul yoon parce que booy reproché ay nit dara il faut peut-être yow nga nekk électeur. wala nga nek ko xamni si dañ la wala élire mom du électeur du ku ñu war hamsi élire mu tok daan ni euh élection yi jaarul yoon donc intérêt reprose xam si amon nako en tout cas japp ma ni intérêt légal la peut-être amna leneen lum leen di reprocher lo xamni si du droit xeyna peut-être loolu la jappone ni bu ngi ñëwé fi xeyna na danañ ko ko jox mais fi nak yoon mo fi dox bi ñëw ba paré tribunal ñun top nañu ñun waxon nañ ni ko diggante bi amul dara amul loo xam ne si indi na ko pour wane ni moom li mu leen di am na.